salaamaaleykum salaamaaleykum euh, mbokku téléspectateur suñu chaîne Kifne TV ak euh, mbokku auditeur u IFK rajo tey nag euh, li ñu dajale fii ci Colobane Guy Murit Daaru Marnaan kër El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom dañuy màggal daal la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mu doon nag euh, bon journée boo xamante ne c'est une journée internationale boo xamante ne dañ koy màggal fépp ci àdduna mais El Hadj Mamadou Moustapha Ngom nag moom euh, ba dara ba dara dul dara la commencé di màggal euh, Seydina Mohamed ba nga xamante ne ba ñëpp fekk ci parce que léegi mawlud fépp foo dem ci àdduna bi dañuy célébrer la naissance du prophète ba ba sama benn xarit ci Inde mu ma doon wax fële ci benn dëkk buñuy ñuy wax Gujarat même ñoom foofu ci Inde dañuy génn di tëgg di def lépp plus de trois cent millions trois cent millions d' yoo xamante ne dañuy génn foofu noonu di célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi mu doon journée boo xamante ne daal euh, presque jullit yëpp léegi dañ koy màggal. Euh, l' équipe de Kifne TV nag à travers euh, son PDG sëñ Moustapha Ngom ñoom nag ñu ngi doon amal ci journée. journée mardi bi ñu ngi doon amal benn caravane boo xamante ne lancement mawlud bi lañ doon euh, amal fii ci euh, kol fii ci Tëngéej parce que jalonné nañ ci bépp euh, bépp quartier fii ci Tëngéej nag di daal def annonce mawlud bi nga xamante ne war nañ ko amal fii tey ci journée mercredi bi ci guddi gi mais nag commencé gul du tey rek la commencé parce que amoon na ay si démb démb démb caravane bi la bërki démboon na amoon na ay set setal préparatif daal boo xoolee durant tout la semaine du gàmmu yëpp gars yi dañu commencé woon nekk ci préparatif yi mais équipe Kifne TV nag moom nag boo xoolee déployé na nag euh, équipe am yëpp nga xamante ne ñëpp indi nañ ak euh, bépp sonorisation ñëpp pour nag euh, moom daal euh, ne bés bi daal moom du si des ginnaaw muy mawludu nab bi nga xamante ne nag ñu ngi koy def fii ci Colobane Guy Mouride ci kër El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom mu doon nag journée boo xamante ne daal da ngay gis ni ñuy mbégte ngay gis seen kanam koo gis da ngay sentir ci moom mbégte kontaante mu wër na daal kontaan lool lool ci bés bi nga xamante ne ñu ngi ko jagle daal guddik Seydina Mouhamed salaahu salaam mu doon nag benn guddi prière guddi ñaan. guddi baalunte ak mu doon guddi boo xamante ne daal guddi gu am solo la moo xoolee donc euh, mu doon guddi gën si guddi euh, mu doon euh, naissance du prophète Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam El Hadj Mouhamadou Moustapha nag moom du du tey rek mawlud la commencé di kii parce que moom boo xoolee même dans le tout dans dans les cinquante deux dimanches de l' année moom day def ay day def ay célébration célébration ay journée du prophète lu si demee ni invitation chaque dimanche chaque dimanche am na fu foo xamante ne mu ngi fay def ay journée du prophète maam si yenn dëkk yi lu si demee ni ay ñaaxaar ay xalambaas ay Sine Saloum yooyu yëpp ay section la si biir dalaay lu xayraat yoo xamante ne dafay am euh, day am day c'est bien structuré am ay représentant bu fa nekk am ay président am lépp boo xamante ne ñoom chaque dimanche membre xayraat bu nekk moom day wootee foofu noonu màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam chaque xayraat day woote kon nag màggal màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ñoom du du si benn journée rek lañ ko natt daal muy mawlud bi parce que boo xoolee dans tous les dans tous les dimanches de l'année ñoom dañuy màggal Seydina Mohamed mais tey nag euh, mooy final bi tey mooy euh, final bi parce que maggal si yu ñu doon def noonu yëpp dimanche yëpp tey boo xoolee tey bii mooy clôture parce que bii mooy journée bi nga xamante ne moo ci gën a mag mais du xayraat rek mooy fête naissance du prophète Mohamed sallallahu alayhi wasallam léegi fépp foo dem ci àdduna bi te nga xamante ne jullit mu ngi fa nekk rek euh, dañuy dañuy dañuy fête mawlu ten mbir mi kanam la gën a jëm mbirum yonent bi sallallahu alayhi wasallam kanam la gën a jëm quelques parties rek ñoo doon euh, célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais léegi boo demee ci àdduna bi gis nga ne léegi dañ ko internationaliser dañ ko internationaliser ñëppay ñëppay ne ñëppay feete mawlud ñëppay feete maw ñëppay feete mawlud mu doon nag euh, loolu daal di gën a jëm si kanam di ñaan nag fii nga xamante ne ci dalaylu xayraat fii ñu koy def mu da nga xamante ne day dem ba doon international ñëpp reconnaître bii nga xamante ne mooy mawlud bii ñuy def fii ci Colobane Guy Murit mu doon moo xamante ne guddi boo xamante ne international lay doon benn c'est unique c'est unique au monde parce que mawlud d'habitude nit ñi boo nee mawlud rek dañ yaakaar ne mawlud Tiwaawan kese la quoi mais am na ay parti yoo xamante ne yu nekk ci biir dëkk bi yoo xamante ne dañuy màggal si naa Muhammad sallallahu alayhi wa dañ ciy sonn di si def seen i moyens di si def seen alal sonn si trop di ko préparer bu baax mais boo xoolee presque gars yi dayo bi Tiwaawan lañ ko gën a jox mais am na foo xamante ne tamit mbir yi daal euh, mbir yi dafa làqu fu nekk affaire nga fa boo fa bëggee xam nag boo bëggee barkeelu ski bi fu nekk danga nga fay dem euh, teg fa sa loxo pour mën a kii mais boo jëlee affaire yi rek euh, particularisé ko yóbbu ko benn côté rek mën nga trompé wu. mais daal boo bëggee mbir yi neex da ngay dem fu nekk fu nekk daal am na lu fa yàlla def nga barkeelu fa fii nag moom mu doon nag moom euh, fii moom dafa doon fu particulier parce que fii dañuy màggal Seydina Mouhamed boo xamante ne bu raxul dara parce que fii dañuy ñëw màggal yonente bi sallallahu alayhi wasallam amul kenn du fi wax neen lu dul yonente bi yonente bi uniquement lañ fi wax te gars yi boo ma boo nga xamante ne da ngay dem si seen guddi mawlud ak yoo xamante ne dañuy dem souvent ay règlement de compte lay doon fii moom yonente bi sallallahu rek lañ fiy wax uniquement le prophète boo fi gisee photo yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga fiy gis Allahu Muhammadu moom ngay gis fii insigne yeeg lépp loo gis ak sport publicitaire yëpp boo gis fii nii presque loolu moo fi nekk yàlla yonent bi salaa salaam fii moom moo moom moo fi am mais na ki waral lool dafa am koo xamante ne nag moo nekk ci ginnaaw que ñëwul rek mbir ñëweewul rek demee noonu parce que am na koo xamante ne moo nekk ci ginnaaw moom moo suuxat tool bi moom moo nampatal moom moo nampatal membre si loolu ba nga xamante ne léegi màggal euh, li nga xamante ne mooy mawlud nit ñi def ko nag def ko seen mbiru bopp di si sonn lool boo xoolee section dalaayilul xayraat ñëppay ñëw waa Sine Saloum fépp fu lu xayraat nekk da ngay déplacé wu ñii dañuy def ay car ñii def ay convoi ñëpp pour màggal fii la naissance du prophète Mohamed fii ci nga xamante ne Colobane euh, Guy Mouride mu doon journée boo xamante ne daal guddi boo xamante ne guddi bu exceptionnel la di si ñaan euh, journée bi tey nag euh, mu doon journée prière yàlla yàlla def fi jàmm si Sénégal parce que ñu ngi jëm si ay échéances yoo xamante ne ay ay échéances ñu war a jëm yoo xamante ne Sénégal mën na tàng lool te guddi yi mel nii comme guddi yi nii c'est bénéfique pour nit ñi ñaan si ñaan si. ñaan si yàlla mën a jàppale Sénégal taxawu Sénégal si yi nga xamante ne ñu jëm ci nag mu doon ay guddi yu leer di eh, di rafetlu di rafetlu ñëpp ñoo xamante ne ñëw nañ fii nag eh, ñëw nañ fii si Colobane Guy rit nag eh, pour fête fi Mawlud bi di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen wax ngeen passé un très bon gambu e merci à toute l'équipe de Kifni TV merci